te nekk ci bopp yoon wi suñu borom jàppale ko may ko wér ba naar yi mu naal mu eggale ko eggale waale naar yi ña ko jiitu woon tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Abdoulahi Lahad sëriñ Abdou Khadir sëriñ Saliou ak doole sëriñ Touba yëpp ko la jigéen mag ak te yàlla may ñu wér ak kattan ba nu ànd ko moom ba loolu lépp egg te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëñ Tuubaa su loolu ma fuus ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxawaay bu rafet bi ci bokk njaboot gi di sant bu baax suñu xarit itam suñu rakk Sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di sant sa waay sa doom yi fi jóge léegi muy Baye Cheikh ak Serigne Mokhtar nga xam ne bëgg na lool tey ci fekkaat leen fi ndax fukki at ak juróom-ñett ci ginnaaw Serigne Saliou Mbacké daf maa yónni woon ci buuru Maroc man ak Chérif Habiballah ci durusul xasadiya ak ramadaniya ñu demoon fa ba leneen li sëriñ Baye Cheikh doon wax sax am na ca ndax ba ñuy dem euh, yóbbaale nañu Masaalikul Jinaan ak yeneen téere jox ko teg ko ci loxol buur bi te loolu sëriñ bi yaatal ak xam ne sëriñ Tuubaa la ci jubloon kon ñoo ngi sant bu baax defe naa ne sax sëriñ Maxtaar am na bagage yi moo ko indaale loolu kon ñoo sant ci loolu bu baax di sant itam. ni ngeen ko jaglelee sunu maam Cheikh Mahmoud Lamine Bara ibnu Cheikhul Khadim ci loolu itam mu nawirul bunyaan bi mu bind nga xam ne kon lii baay Cheikh doon wax ne dañoo bind loo xam ne bokkul ci sëriñ bi moom boo ko gisee danga xam ne ca deret ja yu Cheikhul Khadim mbind ma ak xam nga Cheikhul Khadim ci mbindin wa yokku na ci te feeñ na ci bu baax baax koy noo ngi bég ci turandoo bu baax baax te njaboot gi sëñ Moustapha yabal leen fii ñu teew fii teewaay bu rafet bii ñu fi teew di sant ñu fi teew ñeneen ñi des yépp euh, waaye Cheikh wax nga ko ndonol yi dafay am ndonol yi fi ñu jaar ba agsi ci ñun nu war koo sàmm ba tegaat ko ci loxol ñeneen mooy sàmm gi kon dafa nekk ñu dund ko war koo sàmm muy ñetti mbir yooyu nga xam ne xaadimu rasul dafa mel ne bi yonent bi di feeñ ahdul jaahiliya bi mu feeñoon dafa mel ne Seexul Xadiim nit ci foofu la toll ndax bi mu fi ñëw booba mën nañoo wax ne ahdul jaahiliya la ci Sénégal ndax alxuraan dañ ko daan bandaan di ko foyee travestir ko yàq ko ci lañ daan mayee ay soxna nga xam ne kii tari day yor tubéy juróy ñu koy tëggal ci lañ koy may soxna ci lañ koy defal li ñu koy defal mu ñëw dindi loolu lépp réformé ko delloosi ko ci arrujuu ila al usuli delloosi waat ko foofu euh, nekk mu jadid comme ni ko waxee ndax defar doomu aadama mission bi yëkkati woon sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasulullah moom moo ko yëkkati mooy yeesal booy yeesal la màggat nga yeesalaat kon nag doomu aadama yi bachari yi a jóg te doomu aadama yi yëpp moo ko taxoon a kon wàll googu def na ci lu réeréer yàlla dogal itam baax am ci ndax la tàmbalee ca maam maaram ba ci moom mën nañoo wax ne wal baladu tayibu yaxruju nabatahu bi idni rabbi muy ñu baax ñoo xam ne boo seetee ña bokk maamoor anta sali kenn ku ne sa moroom moo la gën a loolu sa bopp ñu bokk ñoom ñëpp jàppale xadimu rasul alhamdulilah loola itam xar baax la ndax daawul am bu jëkk xotti baax xar baax la daawul am bu jëkk ba loolu amee cheikhul xadim suñ boroom def ko muy kiimaan ndax dafa doxantu ci xam-xam dafa tëb tëb rek annoncer la couleur ne inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa wax fam ko féetale abdan xadiman wal muhayminu shahid seddaloo ko suñ boroom tabaraka wa taala kon xam-xam lu ci am solo la ndax euh, sayduna aliyu karamallahu wajaa dafa wax ne ar ruuxu xayaatul badani wal aqlu xayaatul ruux ruux gi euh, ji moo ko yellu waaye nag ruux moom xel moo koy suuxal te xel xam-xam moo ko war a lal xam-xam suñu borom ba mu wàccoog ñun mooy ba mu joxee xel xel moomu nag dañ ko war a jariñoo ci xam-xam buy jariñ ndax bu jariñul rek borom xam-xam bi ni ko sëriñ bi waxee léegi day mel ne mbaam mu sa fi téere kon sëriñ Tuubaa foofu la waaye nag ndono itam def ko yombul def ko yombul ndax sëriñ bi lu ne la daj bàyyil na fi ndonam euh, lii niru ci kaw ak xéewal loolu bu ko suñu borom jox la waaye jëf jëmm nga ca biir te metti na lool te ak muñ ak jom ak ngor ak euh, fonk alxuraan ak sunna ak tawxid bi ko sëriñ bi waxee euh, nga xam ne imaan wal islaam wal ihsaan la la la lépp kon alhamdulilah sëriñ tubaa daj na ci lu ne ci wàllu boobu euh, at yu wax ne am na ko ci loxol tubaab bi te mus dellu ginnaaw ca la yëkkati drapeau laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu yombul kon ndono dafa am lu ko fi def waaw kon lu am solo la loo xam ne bàyyi na fi ndono loo xam ne parcourir na doxantu na ci xelam euh, ba gëstu boroom xam-xam yi nekkoon ci àddina bi yépp yi ci ëpp solo ba kenn ku ne mu nangul la gëstu la nga nekk jàll ca keneen jàll ca keneen ba sos lii nga xam ne mooy euh, yoonu murit nga xam ne ëpp na tariixa ji mu ko waxee kii ñaanal ba di ñaan ne yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamal wala yaa hadiyan radaa weesu nga tariixa defal doomu aadama yi defal bashariya loolu moo lay yëkkati muy rol ba nga xam ne Euh, risaala ba ñu joxoon muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon euh, foofu la ñu koy féetale ku xatal rek kon bokkuloo ci te ñaari mbir la lii niru xéewal day bu ñaa bu ko suñu borom jox ci liggéey bu rëy bi mu liggéeyal muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam saa yu defee matxu rek tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tagg ko rek ngir tagg ko dafa joxoñ jëmmi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko référence wan doomu aadama yi ne leen da ngeen a war a roy ci fii ci ay meloom ci ay makaarimul axlaaqam da ngeen cee war a roy loola mooy tagg gi parce que moo gën a pratique ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo tax su borom sàkk ñëpp nga joxe ci kooku ay tegtal ak i màndarga defe naa ne ka ngay waxal foofu moo gën a gàtt moo gën a yomb ci da nga bëgg dugal ci moom ci defar nga wane kookee jëmm jooju nga xam ne dafa fees dell ak i makaarimal axlaaq kon alhamdulilah ndono li nekk noonu di lu rëy loo xam ne mën naa yor àddina lu jar dellu si xamaa nga cee joxe détails yu bari waaye Baye Cheikh jaar na foofu ba noppi la ca des mooy ndono li fi mu jaar ba egsi mooy mag ña la leen Serigne Touba jaraloon ak joxañ ba mu leen joxañoon ci njàngaleem mu tedd moomu la mu leen jàngaloon ci wàllu boobu nga xam ne dañoo investiroon seen lépp bëgguñu dara xooluñu dara la leen sëñ bi joxañ la leen loola ca leen jëm la mu leen tere rek duñ ko sax a jéem def waxuma naan dañ koy bañ kon loola lañu sàmm ba teg ko ci sunu loxo muy Euh, la ca biir mooy baatini bi ak li euh, mu ko waxee ibaadaat yi nga xam ne euh, amalu saalix bi mu wax moom ak kashful xalal xalal bi mu wax loolu Sëriñ Tuubaa na la doon waxee digal ñu ne ñu jaamu yàlla ba nga xam ne day mel ne suba lañ fi jóge Euh, di liggéey ba nga xam ne day mel ne mosuñu fay jóge parce que loolu mooy projet de société projet société loolu loolu la fi bàyyi ba tax na tey fi mu ko basé moo di ci volontariat ci coobare doomu aadama bi defar sa xol defar sa ruux sa jikko jox lay makaarimul axlaaq ba nga xam ne li ngay li ngay def dafay sedd sa xol boo ko seetee ci histoire am na ci Russie am na ci ñu jëkkoon latin yeeg grec yeeg lu ne def loolu nañ ko doomu aadama yi mais doomu aadama yi boo ko contraindre ci loo xam ne neexu ko bu ko defee itam bu baaxee tey du baax la moom nag dafa fexe ba lam lay def loo nekk sa xol ba nga xam ne yaay pasteefu yaay coobarewu defal ko sa bopp foofu la defaree doomu aadama ñu xale bu rasul boo xoolee eh, ci Union soviétique de l'époque amoon na lu ñuy wax ay gulaag ay kolkose sowkose et cetera tool yoo xam ne dañuy force nit ñi mais mujjul fenn yooyu yëpp nërmeelu na sëriñ bi nag euh, yëkkatul bocciwul paaka bocciwul jaasi xalimaam la yor ak i xalaatam ak i tegtalam ci Muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ba àddina nangul ko loolu nag mu fi bàyyi dafa jara sàmm bu baax a baax nañ def defam egsi ci ñun amuñu droit waajib la ci ñun ñun man koo wéer ba nga xam ne dara du ci sikk du maxe du xumaat du def dara te loolu jënn jëmm di def lu toll nii ci àddina nga xam ne boo dee masalan Touba rek deux millions ngi fi lu ma trois millions dañ fi ñëw muy cinq millions de de de de de personnes yu ñëw Touba benn doomu aadama waral loolu bu buñ góorgóorlu woon roy ko ci ni mu royee muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba niroog moom buñ ko roy woon ci wàll googu topp ko kon yaakaar naa ne dimension spirituelle bu Serigne Touba yi doom àddina danañ ko gën a xam danañ ko gën a xam te loolu kenn ku ne la ci ñun kon lii mu bàyyi ci kaw nii muy xéewal gi loolu lu ko yàlla jox buñaa rekk la waaye loola taxu ko woon a jóg te loolu day àgg foo xam ne dañuy dugg kon ci affaire ni ñu ko war a défendre ba ndono li turaas bi dara du ci sikk moo di notion d'intérêt fu mu xas dugg rek ak yàqu mën na faa daal di sax bu ko defee buñ gisee côté boobu rek danañ wor Serigne Touba danañ ko wor euh, li ci ëpp moo di kon dana war a góorgóorlu ba transmettre ko génération future yi ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñëw ëllëg tey euh, ni ko sëriñ bi waxee danoo war xàmmee luñ bind ñu denc ko dencin woo xam ne am nay dencin yoo xam ne yu moderne yoo xam ne du yàqu ñu denc ko dafa ràññee xàmmee euh, ci ni ñu ko parce que am nañuy renseignement ci archive yi am nañ ci renseignement parce que am na waxtu woo xam ne man Serigne Sadiou digaloon ne ma ma dem Nantes pour jéem a tooyu yu mel noonu am na yu bees yu xew na waaw xëy na des na ko xam ci kanam des na ko xam euh, ala kulli xaal Serigne Mbacke Madina def na ci liggéey ci wàllu boobu ndaxte bi nu nekkee ci ministère de l'hydraulique euh, dafa jël euh, naar yi téere yooyu ñu bindoon ci Serigne mu ne. Euh, bu fekkente ne mbokki seriñ Touba ñooy wax ci Serigne Touba yaakaar naa ne ay jàmbur wax ca la wax te bokk na ci ñoom boromi xam-xam yoo xam ne am na ku ñuy wax Ibnu Mualla bi ñuy def dictionnaire dañ ko daan consulter borom bari xam-xam la tagg na Serigne tubaa tagg yoo xam ne boo gisee alhamdulilah rabbil alamin loola dem nañ ci France ba traduire donc ñun lu ñu war mooy xam le patrimoine u Serigne Touba patrimoine immatériel li mu bind lépp ñu fexe ba xam ne ko te dafa mel ne bu doon loo xam ne dañ ko war a euh, ton bu ñu war a bay day mel ne dañuy door a topp bi sas yi waaw waaye bay duñ ci dara ndax lu mën a yor adduna la foo ko appliqué dana fa dox ndax nit ki nga xam ne li muy def ci coobare boppam la koy def ci xol bu sedd la koy def boole ci di sonn boole ci bu sonnee ba pare di jooy alhamdulilah rabbil alamin loolu kenn gisul benn modèle bu mel noonu feneen fi ci des ay travaux forcés dañuy def ak yu demee noonu